ñun waa ahlul badar ñooy siyaara tey ci dëkk boo xam ne daan nañ ko romb sax di dugg ji wàllu tusu ñu gis fi dund boo xam ne yàgg nañuy bëgg taxaw fii ndax yaakaar naa soo demee ca Foundiougne suñu mbokki chrétien yi ñoom ñoo ma wër man sama kër gauche droite ci seen digg laa nekk ñu bokk di dund dund bu rafet di demlante ci lu ne te loola it ñun ñoo ko warlu ndax damay wax ne fu ma dem fekk leen fa fekk naa fa samay am di jàmm fekk naa fa samay doomi ndey fekk naa fa samay mbokki jaamukatu yàlla tey nag ni ko rijaal yi waxee ci jamono toujours damay wax ne jullit yi dañu war a yeewu tuuti parce que lu tax ñu war a yeewu mooy dafa am lu ñu arab yi gëmloo te du dëgg mooy dañ gëmloo dañ gëmloo jullit yi ne maanaam diine beneen budul diine musulman baaxul. xaama beneen diine de diine juif xaama du ma wax bon na bonu parce que diine bu ne yàlla ko sàkk waaye li ma wette wóor ma mooy xaama beneen mais diine chrétien jullit bu toog gëm ne baaxul tàbbi nga sawar benn ngoog parce que lu tax soo gisee ñu wax loolu mooy ñun Serigne Touba ci lañ wékk te Serigne Touba dafa am lum bind ba muy lim góor yàlla yi mais def ci bee boole Insa te loolu lu wér la te Serigne Touba lépp lum joxoon dëgg la wala de ñun nag ci kooku lañ wékku wékkuwuñ ci keneen ñun wékkuwuñ ca arab ba mbokk yi kon waa dëkk bi nañ xam ne seen mbokk ñoo ñëw yaakaar naa sax waa ahlu badar war nañoo mën a méngoo kirista bi parce que duñ julli ñun gëmuñ koor gëmuñ natt asaka gëmuñ dem Makka ñun la vérité absolue la ñu te loolu dëgg bu wér lu ko waral parce que yaakaar naa ne Serigne Touba su dikkee ne lim góor yàlla yi boole ci esa ñu dawaa dem rek yagul dara suñu ragne kan moy suñu yónnente isa ñu ko may parce que alcorane ko wax ndax isa mo non sayati min bahdo ismo ahmad xamna ku ne ñew sama gannaaw turwa ahmad lay tuddu lolu isa ko joxoñ bobo julli ya gisaguñ muhammad kon est ce que su doon ton ak dem jodi ñun day xam ki ñu am nit nak so amul ngor ñak na ko nit so amul xel perte waaw bu wer soo ñëwee ci alxuraan suñu yónnante ñun lum ñu wax laa nu fariqu bayna ahadin min rusulin wa naxnu lahu min al mursalin li dalee ci man Muhammad ba ca Adama mbooleem kuñ mos a yónni suñ diggante tàqale koo xamu ci mais lii Muhammad suñ yónnante moo ko wax li dalee ci man ba ca Adama mais kon Isa amul tàqale ko ñu su fekkee gëm nañ suñ yónnante laa wax moo ko wax. laa nufarriqu bayna ahadin min rusulih wa nahnu lahu minal mursalin suñ diggante amul tàqale ko ñun ñëpp ñu ngi tënk woon ci leeru mursal leeru mursal googu lu muy defar xol te yaakaar naa ne Iisaa bi mu dikkee deferu dara ci nit ñi lu dul xol yaakaar naa lu mu andi leer moo tax ne heure ce qui ont le cœur pur car loolu Isaa wax ku am kër pur da nga janoo ak sa borom Serigne Touba ñëw dëggal ko ne man taara xal boo saa tax ni si yaraa rab boo saa tax ni si ku ñu fóot sa xol ba mu set wecci da nga janoo ak sa borom ba mu leer nañ mais kon ñaar ñii méngoo de xanaa wala de kon nag yaakaar naa ne suñ taxawee ci dëkk bu mel nii ñun waa ahlu badar laa wax nag man sang Cheikh Moussa Diagne nag gannaaw ahlu badaan ngeen toog ñeneen toog mu des ma man zël man man man xàmmeexuma Mouhamed ak Insa te suñuy waxante dëgg dëgg dëgg dëgg nag neexut a dégg de billaahi wallaahi wa tallaahi li may wax micro la nañ ko génnee ci àdduna bi suñuy tànn ku gore rek ku ragal yàlla te jeex ca takk ah te muñal yàlla te mu dee dëgg laa wax leer gi yàlla joxe muy leeru Krista di rasulillah Eesa wooyee ko Krista Mohamed ñëw wooyee ko rasulillah leer googu laa wax suñuy seet ku ko dund dëgg dëgg dëgg dëgg na mu waree ak na ko yàlla santaane billaahi wallaahi wa tallaahi Eesa ibnu Mariama moo ci man Mohamed man maa wax loolu nag. preuve preuve laa wax preuve preuve laa wax ne lu wér la ndax lu tax. yàlla moo ne wa maa arsalnaaka rasulan illaa rahmatan lil alamin la leer gi lu dul nga nekk yërmande jaam adduna bi xaalam la wax mooy dëgg Isa yor na leer googu mu jaar ci moom ñu jam ko ay pont dóor ko def ko lu ne te fayulu kenn mooy dëgg te xoote na Christ ba ba mu dem Muhammad yàlla jox ko ko ñu xajal ko mu génn gàddu jaasi de rey ay mbokkam te l'islam rey bokku ci mooy dëgg billahi wallahi wa tallaay parce que lu tax laa ikraa fi diine daay collectif yónent bu rey diine amul force la wax yàllaa ñu ko wax kon lu tax li yàlla wax duñ ci dellu lu tax ma ne li yàlla wax duñ ci dellu bu wér kon nag bépp musulman bu fi toog de xamee Isa ak Muhammad di werante ku ci gën yow danga dee tabbi safara bu wér chrétien bu fi toog del lijjanti Isa Mohamed ku ci gën ñàkk nga kon ñoom ñaar liñ woote daleewut ci église daleewut ci biibul kii daleewut ci jàkka daleewut ci koora barke laa ilaha illallah mooy dëgg parce lu tax suñu religion moo ñu tere jàkka yi wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi loolu lañ ñu wax bàyyi leen xel yéen julli ne jàkk yi ngeen di dugg dem fa ñu wootee yàlla ñu boole leen ak yàlla moo gën benn ngo nga daaw dem ca jumaa ja ci suñu religion ñun ñu ne la isaa nuudiya salaati min yawmi jumaati fantasiru fil ardi wartaqu fadlullah su àjjuma jotee bul daw jëm ca jumaa ja wala sooy dem ca jumaa ja bëgg yàlla nangu la sa julli na nga wàcc suuf si taqoo nga leen yàlla lii la ñu suñ kii wax kon képp ku daw jëm ci juma te mënu laay wàcc suuf si bisu àjjuma soo jullee wax moom acca ñëwal Isa ibnu Mariam moo ko bind ca Bible ba ne ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier dans les églises et dans les carrefours parce que en qu'on les voit waaye quand ils su dara desul lu nga jaamu yàlla retire-toi la la wax où est loolu Esa ko wax na ko nit ñi di wàññeekul dellu ci sa bopp ferme la porte sur toi où est porte sur bunt bi ngay tëj ci sa bopp fu mu nekk waxul la gëmmal waxul la tegal buntu église waxul la tegal bible bi daf la na ferme la porte sur toi où est porte toi waaw man koy laajte de waaw waaw bu la kon loolu noonu su waxee dafa am lu muy junj nit ñi ana nit ki ban bunt la war a tëj ci boppam mooy buntu dëgg nit ki dafa war a am la vérité absolue tëj ko ci dundam bi wala mu perta buntu nit diggante moog yàlla mooy xol feet jaarut jëlul mbir jaarale ko ci xolam bi yàlla du ko laal mooy dëgg kon nag nañ xam ne gis nga yàlla nag ba mu bind bindul ñu pour Muhammad na leer yàlla bindul ñu pour Isa na leer yàlla ku bind boppam a tax moo ko wax de képp ku ma bind man yàlla su ma tax ma bind la wala de. kon nañ bàyyi xel kàddu ko ñoom ñooñu nag fañ jaar ba dimbale jaam ñi ñun nañ fi jaar mën a dimbale jaam ñi wala bokk ñoom ñoom dara mooy dëgg ndax xam-xam dëgg duñ ko marqué ci téere dëgg amul araf dëgg lu ne ci livre teggi nit comme yàlla dof dëgg laa wax du ne ci lu ñuy bind parce que nekkul ci jëmm te jëmmi doomu aadama gën a jege yàlla bu wér parce que daf ne lu ma bind nit a ci gën te dëgg lu ne ci jëm yow mi may dégg li dalee ci sa wewu ba sa ca sa kaaram bopp du du dëgg du dëgg du yi ba ci parce que dëgg tële mu dalee ci sa wewu ba ci sa karaw bopp ba loo ci mën a du dëgg parce que dëgg day nangu xam-xam te sa tànk bi amul xam-xam sa loxo bi gëmul Isa su dee bi loxom bi gëmul Muhammad tànk gëmul yonent bopp gëmul yonent loxo gëmul ko billahi wallahi tallahi nañ bàyyi xel ki gëm ki gëm sekara kon nañ ko wëri kenn ku ne moom nga war a xam ci sa bopp wala nga dee tabbi sa war ak koo mën a do yàlla yàlla la moo amaloon Mohamed xëy rocci ruuga mu daanu ñu wàq jëmm ji suul moo amaloon Insa xëy rocci ruuga ñu wàq jëmm ji suul ko te kenn poñewu ko te moo daj kapp fee dell manquewul ci kenn ana yàlla yàlla moomu lay war a xam yàlla moomoo taxoon góor yàlla lay bu wér kon suñu dajee ñun nit ñi ci àdduna bi bàyyi nañ dawal suñ xel bu ñu lenn boole nañ bennoo parce que su dee dëgg la dun laa wax de war nañoo mën a ànd nekk benn dama ko doon wax parce que jamono yi maay dugg Foundiougne booba métti na lool ci suñu mbokki chrétien yi parce que duñ génn ñu deleen leen wax lu ne maa dajji kiiraay boobu barke laa ilaha illallah maa ko dajji tajjat booba musulman yi duñ dem seen dëj ma ne leen da di fen naa fekk ngeen parce que mënu leen mënuñoo bokk quartier yi mënuñoo bokk mbedd yi bokk marché yi bokk yére yi bokk ndox mi bokk ngelaw yi bokk guddeeg bëccëg ba pare ñëw ba agsi ci jaamu yàlla ne duñu ànd loolu du dëgg waaw na fi chrétien bi nooyi ngelaw lu julli nooyi ko aca ana ndoxu chrétien ana bu julli aca ana suusi chrétien ak bu julli aca ana bakkanu chrétien ak bu julli xanaa kon yàlla lu mu wax du dëgg yàlla ne xalaqa nafsu xalaqa nafsun waahidatu bind naa leen ci benn bakkan wala julli di dañ ko amee ci ndong walla ci wet chrétien yi amee ko ci kanam <laughs> ah aca kon dana topp affaire bi xam na yëf yi am na lux làmb am na luxus ma dajji kiiraay boobu teg maa njëkk a tenk tënk sumay mbooloo ne leen dem leen église man ñu ngi koy enregistré nañ ko génne ci àdduna bi ñun dañuy dem église waaw waaw dañuy takk croix dañuy màggal Yeesu Krista kenn moomu ko barke laa ilaha illallah ku ko moom kaay ku moom ne maa moom Krista bi kaay xanaa alal yàlla alal yàlla jàmm di ci teg loxo yàllaa ko teg loxo de ko de ko des désir bi ah lañ ko ah désir désir naka waaye waxuma désir de désir mooy gaañu fii ci tànn j'espère prix rek dégg dégguma français bi ah. nag gàddi ah laaj ma ko moom boog loolu ñun ñoo ko def fu ñu ne leen génn leen su ñu amee dëj ñu dem ñu ne ñu wax lu ne ba léegi ñu ngi koy def ku wàcc liggéey ñu ànd ak yow dem ca église ba ànd ak yow dem denc ko ñëw bokk ak yow ñaan gi wax nañ ma ci lu ne nag ma ne leen lijjantiwuma leen parce que man nit ak doom doomu aadama ak moroom ka laa xam li may dund mooy nit ak nit mooy dëgg te manuñ day joxante ay weccet ñàkk ngor lañ def ñàkk def loo wax naa dëgg de adduna bi nag ba àdduna bi daj soo dee seet ku bon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fii ba alaxira jàppal musulman maa ko wax li maa wax ko adduna soo dee seet fenkat dëgg dëgg jàppal musulman cargo bateau nga taxawal ko ci pegg musulman yi balaa trente minutes danañ ko fena fena fena fen ba cargo cargo ga du dem mooy dëgg te suñu yonent laajoon nañ ko lépp nag maam ndax julli dana njaalo mu ne waaw man dana sàcc ñu ne waaw ndax julli dana def li ñu ne mu ñu ne ko waaw lu julli warta def mu ne fen fen rek moo xaraam ci julli te julli ci lañ dëkk parce que asadu an laa ilaha illallah dangay fen parce que seede naa ne dara nekk fi lu du yàlla ñu ne la ana yàlla nga ne gisuloo ah booboo taxoon mu ne fena haram fen fen woowu la doon wax de asadu an laa ilaha illallah ana yàlla nga ne yàlla nekk fi te yaa ne dara nekk fi seede naa ne dara seede dafa garaaw seede témoin témoin man maa témoin ne yàlla dara nekk fi lu du yàlla yow lijjantee googoo teg fa la ne ashadu anna muhammadan rasulillah maa ngi seede ne Mouhamed rasulillah la te am ci juddu rasulillah amul at kon du rasulillah ca aadama la ne fu xeetu arab ne laa ilaha nag chrétien yi nañ xam ne ñun niñ koy bi ñuy tudd nii du arab de parce que laa ilaha mooy kalimatul ula mooy baat bi njëkk lañ wax. booba yàlla bindut arab moo am te Muhammad ñëw ne li gën ci man te gënal yàlla te gën ci sumay moroom yónnent ba ca Adama ñu ne lu kon mu ne laa ilaha illallah kon laa ilaha illallah arab billahi arab yi niñ bëggee yomb laa ilaha illallah bii ku koy wër Cheikh Rafal la moo réeroon ci àdduna bi dekki na moo mën a defar jumaa yi defar jàkka yi defar église سيارة فعلا دفر القرآن دفر بيبون دا كان منو جدا بارك لا إله إلا الله بس كم وتهي دك تدك سين وحي نيا الله دك لا وح يومن تدك لا وح كل إيسا وح دك لا لي محمد وح دك لا كون يار نيو نيو تدك لين كاسي موام كون لوسي جار قيرو أك نايو عربي بنيو نخ نيو سنة قالي نيو كوا وح بين بوبلين dafa am benn ndaje bu ma mos a fekkee Foundiougne <laughs> Eliman toog Abbé toog xam nga ni jullit ji bëggee théorie commencé diine ji benn la booba njëgi essence la bëgg ah <laughs> diine ji moom nit ñi benn nañ nekk benn nañ nangam nangam mu wax ba pare ñoom ñëpp ñu ne waa wax ba pare ma ne leen toog leen <laughs> ñu toog ma ne leen ay kilifa ngeen ci dëkk bi yow Eliman su fekkee li ngay wax dëgg su dimanche jotee demal meesi yow abbe su fekkee li ngay wax dëgg la su vendredi jotee demal juma fee gisuma lii toogu leen ci dëgg ñu ne xuj xujaaral dama xool ma ne waaw éliman jëlal biibul bi jàng ko abbe jëlal Coran bi jàng ko te ñoom ñu ngi jàng Coran bi ah mooy dëgg abbe sek sek sek xaw ma sek sek barke laa ilaha illallah kooku dama ko naw parce que kooko jàng kooraa bi ba dee daane ustaas mooy dëgg télé dajji fan yow nga ne doon lijjanti li ci biibul mooy dëgg te lu la njëkk moo moo la la ah? waaw ku la mag lum do ci yow kon kilifa kon biibul bi mooy kilifa kooraa bi ko dindi kon nag maa ngi leen di biral ne Cheikh Ibrahima Fall yéen chrétien yi Cheikh Ibrahima Fall laa bëgg ngeen xam ne li muy dund war ngeen koy mën a am Serigne Touba li muy woote war ngeen koy mën a am parce que sigil na seen yónnent te publicité na ko te bind na ko ci ay xasida kenn du ko dindi ah ak ah, sa tey suñ kooraa isqaala isa ibnu mariam dëgg dëgg dëgg lii kay lu wér la ah ñu ne lan mu ne yaa bani israila nañ ko dindi ci kaamil bi fee dindi wuñ ko ci kaamil bi kon isa bokk na ah parce que loolu mooy dëgg isqaala wax na isa ibnu mariam waaw naka la isa waxee ci suñ Coran bi ñun ñu bëgg koy ñàkk gëm xanaa du wax yàlla ah ah moo ko wax di yaa bani israila ee eh yéen samay mbokk inni naka man rasulullah yónent yàlla laa ilaykum ci seen biir musaddiqan ci dëgg la wax wala de loolu la bind nañ ko dindi hee eh, si ala faal nag del si waat dunya dëgg la wa bi muhammadi rasulillahi alayhi xayru salawatillahi waaw wakkun bi Moussa nga ne wakkun nekk na bii nekku yàlla gi Moussa ci Moussa anna Moussa wa bii nekk na jaahi di dundal wala jaahi di wane wala jaahi di nekk insa anna Kirista man maa Yeesu Kirista barke laa ilaha illallah billaahi wallaahi wa tallaahi tallal naa ko ci àdduna bi dafa doy maa Yeesu Kirista ku bëgg a yëg Kirista bi kaay ma xamal ko man bañu ma kaay ma jox la leeru Kirista bi nga dem ci sa religion de ko dund lijjanti yàlla laa yor yàlla yàlla laa wax de yàlla barke laa ilaha illallah 92 laa doon dem église jëppal waaw waaw booba maa ngi dëkk ñoom Dakar benn tali kër googu sama mag <laughs> moo fa njëkk a bi ma agsee <laughs> ñëw fa ne ci néeg néeg nañ ma nag <laughs> yaa ngi nii nag yaa fi gën a woowle mana ne ah mu ne ma waaye xamal ñi nga dëkkat ma ne ko xam naa leen de yaa ngi nii nag fu ne nga dugg waaye fexeel ba bul dugg ci ñeene mu wax ba pare ma ne ko ay laay xay di yëpp loolu duma ko def laay laa loolu kay duma ko def mu dugg ci néeg bi de sang ma dem dugg ca saal ba seetaan tele mu sangu ba pare génn ñëw ne ana ma ko ma wuyu ci saal bi ma ñëw mu ne ma xaj yow la ma la waxoon ma ne ko laa def de la ma waxoon laa def de man ca saal ba laa ne de new ma ci ñoom yow looy wax ni ma ne waaw waaw ah, ñu dem ba dimanche jot xam nga du jaay day noppalu ma noppalu ah mari jot di dem di ba ma yeewu gis ko rek sol yére topp ca dem ba ñëw mu ne ma foo demoon ma ne ko dama demoon église église ma ne ko waaw église ne lu tax nga ko ma ne ko dama toog jàng ko ne iga illallaahi la liiga lillaahi la illallaahi lillaahi lu tax du ma ci dem mu ne ma yow loo wax ma ne ko billaahi loolu ma fa yóbbu de iga la liiga lillaahi illallaahi jëmal ci yàlla lillaahi na la yàlla ñeexal te man dem naa ci yàlla ba yàlla ñeexal ma ba ma am ko dama fa dem ah ñu dem église toog ba gaa yi de gaa yi de séddale seen ostig bi ma ne feewu feeweral nag maa ngi yor suma kurus di ñu romb ma waa ji romb ma ne mu ngay dem ma téye ko ne ko jox ma xam nga maa ngi yor kurus mu sigil ni ma ne ko jox ma mu ne kii ma ne ko xanaa gëmatu la yàlla xanaa yow du eesa nga ne mu ne ah ma ne ko eesa bañut kenn boddul kenn dara di jox ma <laughs> mu jox ma ma dugal ba pare nag ne ko nag bi mu paree ma ne nag am na question bu may laaj mu ne ma laaj ma ne ko bii ngeen jox ma baax na lool waaye hostie vivante bi lay laaj waaw waaw donne-moi hostie vivante jox ma ostig bi wante bi bii du ostig bi wante parce que bii yéen a ko saaf ci diwlin te dana am lu ma la laaj yéen a ne jëmmi Insa ku ko lekk dootoo xiif ku naan ci suma deret ji dootoo mar te yéen a lekk ostig bi ne jëmam la te su ngeen jógee añ loolu day jaaxal na yéen a ngay naan ci kii bi te su ngeen su ngeen jogee ubbi frigo bi naan ah ah la ilaha Eh, eh, eh. te ndeysaan oh daf ne ku ko dund sax dootoo dee wala de waaw waaw waaye hostie vivante ba la wax képp ku laal hostie boobu instant ne nag ku ko lekk dootoo dee ma ko laajte adduna bi nag waaw léegi lu tax chrétien yi xam am armel te ñu ne day dekkal ku dee day doxloo lafañ day xolloo gumbo mais ban la ban ban day dekkal ku dee te gaa yi de dee rek te gisatuma chrétien bu fi dee dekk am man xana sekere ba neatu ko day dox loolu la fa nga jël weñ takk ci ay tanki borom bo man naa ko ah wana deug mais lan la lan lan kon nañ topp yonent yi li ñu jox nañ topp yonent yi li ñu wan li ñu tegtal lañ war a xool day dekkal ku dee parce que nit ku yàlla bind nga ne ci sa jëmm ji xamula fu la yàlla féetee dee nga sëñ Fallou Mbàkke ko waxoon la tax ma jaay njureel gandee taalibe képp ko ko ñàkk sa ruu gi dee na ci sa jëmm ji bay xasaw te yaa dox ci biir nit ñi Fallou Mbàkke ko waxoon kon dund boobu la doon wax képp koo xam ne demu la ca Christ ba mu def la ci yow mu def ci yow xel mu sell lafañ nga parce que doo mos a dox dem ci yàlla mooy dëgg képp ku mu fóotu sa boti xol gumboo nga kon nañ bokk dellu ci laa ilaha illallah mbokk yi loolu moo ñooy jëriñ fii moo ñooy jëriñ fañ jëm waa dëkk bi nag ñu ngi ziar tey nag moom seen mbokk fi ñëw ñun woo ñooy waa axlu badar bu sang Cheikh Moussa Diagne wax nag bii taxaw de sang Cheikh Moussa borom daal ñun boobu lañ ñun ñooy kuréel boobu kon mbokk yi li nga xam ne moom lañ yor li ma leen di wax nañ boole ñëpp bëgg nañ boole ñëpp nangul nañ boole ñëpp dund parce que loolu la ñu lii de jëriñ kon amul kii musulman la amul kii chrétien la amul kii juif la amul kii bandi amul kii ceddo la amul loolu nañ ko teggi teg nële te xam ne saawaay mbir mi lekk gu toog la ñii bëgguñ soow ñii bëgguñ yàpp waaye buñ wax ne bon na li ma wax dañuy toog fi naan mbaam xuux dafa haram nàppati ngolooli kacaw kacaw nga ñàkk fi ba raw ñàkk le dem ci chrétien bi ne ko lebal ma xaalis mu jaay mbaam xuux lebal la nga dem jënd saako ceeb dikk ne ko dara sa kër yaag sa njaboot gi yëpp ngeen de lekk xuux soo génnee taxaw ci biir nit ñi naan baaxu yàlla dana def lu bon ñi ñoo façon bon mbaam xuux ku ko bind nit ah ah Baye Bass malaayika ko bind ku ko bind yàlla dana def lu bon waaw lu tax tey ñu toog ne loolu baaxul <coughs> ba ku koy gëm loo nit ñi xuuxa gëm nag moo gën ganaar moo gën béy moo gën xam mooy dëgg kay koso de lee day ku ko ci mos koso de lee koso moo moo fi waaw gàncax borom yow de ñam nga pourtant kosone leen ma de bi xuux de moom maay waaye kosone leen dëgg la dëgg la foofu la tigi yaa ngi koy wax jërëjëf. kon dañoo bëgg rek ñu bokk nekk benn gis nga soo fi xamee mbaam xuux ak bëy tax bi nga sawara dara ca biir hey billaay ey soo ko mosee koso dee lee buñ supp ba soo koy lekk soo déggul xuux ga rek baax na lekkal waaye soo ko tiimee nag mun a xuux ci ndab bi bu lekk rek waaye soo ko tiimee waxu dara ne cel ne cel la danaan ko acca ñu dem fu mu yem neex na ma mooy dëgg di barke laay laay na laa li ma atu kam de ñun ñun lépp lañ boole mu dem leen na waaw moo gën kon nañ bokk jàmm laa wax chrétien yi ak musulman yi ñoo bokk ndee bay ñoo bokk adduna ñoo bokk jëm ci yàlla alaxiraay chrétien amut alaxiraay musulman amut bis pénc ci chrétien amut bis pénc ci musulman amut xanaa ñun ñëpp de dajee ci kanam yàlla kon nañ fi nañ daje ci nañ daje wante ci suñ kanam dimbalante mooy dëgg man li may wax nii dama ko def parce que man am naa doom yoo xam ne maa ngi leen maye ci chrétien yi gis nga am na loo xam ne maa koy dindi de ci àdduna bi yooyu fi war a jeex parce que fitna rek lay indi te lépp lu dee andi fitna baaxul mooy dëgg kon nañ bokk nekk lenn ñu ngi gërëm nag waa dëkk bi ñëpp ñu ngi leen di gërëm xamna naa musulman yi nak suñ ma déggee la ca tegee nak maa ngi daw ma randu ma tiitu képp ku dem musulman ma ngi lay woo su fekkee xam nga xam-xam la wax ma ngi lay carte sur tabu ñaari micro ngi ma laaj ma tontu la te luma la laaj do ma tontu man sang Cheikh Moussa Diagne ma ngi fi kuy musulman kay lo yaakar dikkal su lolou jalle yen chrétien yi ma ngi fi daw ma randuhuma lu ma waay ci Christ bi te manuma lay tontu bama te luma la ci laaj dooma tontu man carte sur table ñaari micro la yor ku ñeme kaay waaw lamb ji dee war na samp na dëgg ci tout le monde entier nak ba Makka ba Jérusalem tiituma benn borom diplomatie laqutuma man dal di wax te dana ko wax église yeeg jàkka yi laa yemale musulman yeeg chrétien yi juif yeeg laa yemale teg naa leen ni ci digg adduna bi waxuma Sénégal waxuma Afrique digg monde entier maa ci teg sama ndënd yëkkati suma tànk teg ci ku ñeme na ñëw puus lu ma waay laaj ma tontu la te ku ma laaj doo ma lu waay xam digg sooye boo dem ba ca asamaan yi juróom waaw.

jërëjëf kon mbokk yi ah waaw noonu laa koy waxee nag te ni ma ko waxee noonu fu neex nit ñi nañ ko wax <coughs> nañ ma woo télé yaa ngi fi rajo yaa ngi fi micro yaa ngi fi tànk yaa ngi fi grand place yaa fi jàkke yaa ngi juma yaa ngi église yi ku ku nga dajale sa mbooloo ñu toog loo ma laaj ci ma tontu la ba yàlla xamal gu dara ak bi yàlla feeñee ba ne fan bi mu roofoo ci xay bu mën a teg maa wër lépp wër ba te bu jeexal xay bu jeexal saa yaram dem ëllëg naan ko ba mu ma xëcc yàlla roof ko ci suma biir toog ci koom ne anna allahu rabbi taala anna allahu barke laa ilaha illa allah lu lënt nit ci yàlla kaay man maa ko wax fa kullu man sa alani fali jaam man maa ko waxoon dee lu ma waay laaj ci sa loolu rek la waxoon teg Bamba Njaay ñëwati na waaw waaw man maa wax loolu barke Serigne Touba dawuma randuxuma ku weddi dikkaay foo ma invité ma ñëw ba bar sàq sax soo ma xooyee ma ñëw ku ñeme kaay waaw fu ma dem wax ko de ñaari maam seeru faal di borom seeru faal Wala ilaha la la. Wala ilaha la la. Ya ya la Kon Baye Bass jërëjëf ñu lay ñaanal jàmm dala wax ne sant nañ liñ fekk ci yow muy Serigne Touba kese waaye nag am fu la Serigne Touba tegtal dama gis mu bind ne basarakal jamil ya xayra imam lii la Bamba bind kon imaam yi ci jàkka yi duñ imaam doyut bay bas Serigne Touba moo ne basarakal jamil yaa xayra imaam borom gis bu taaru ba mooy imaam bi gën a mag moo ko wax kon jàppal foofu la bu wér li may wax nag bul bañ kenn waaye bul bañ ku la bañ gis nga dëgg ku ci jublu doo bañ kenn waaye doo bañ ku bañ nag doo wax kenn lu ñaaw waaye baal nit ñi ñu wax la lu ne waaw waaye nag ey suñ teewee ci yàlla ah ni ko gars yi da waxee kenn ku ne danga xam ku man sax du ma ca àgg de laa ilaaha illallaah allahu akbar <laughs> sanga laa ilaaha illallaah Musa Musa Rasulullah ana bàyyi laay ñaari bàyyi laay fi ne sang la ilaha illallah bay laay bu la jërëjëf yal na nga gudd fan te wér defal la ndam yàlla defal la fanu gudd ak wér ak njëkk ak tiraanga ubbi la warsak yàlla aar la kaaraange gu wér ci barke borom daal ah, ñu laay wax ne nag tëddal nelaw te tey laa ilaha illallah maa koy wax ku yàlla bind ñun ku tëdd ci suñ ku nekk ci suñu cercle ñoo garanti sa ruub bi dugal fu la neex barke laa ilaha illallah kenn mënu ci yow tos ñun kuñ garanti pare na xanaa yàlla ca yàlla am ba waaye jaam ak pexeem jeex na man suma taalibe kenn du ko liggéey kenn du ko xaatim kenn du ko fanaanoo kenn du reen du ko jàpp pos du ko jàpp ku weddi jogat danga see Moussa Diagne yaa di borom yàlla Diagne ku ko ci weddi aca man maa ko man ku ma teg loxo sa sa garante pare na kenn man mënu ci yow tos yàlla sax balaa am na fay jëlee dana ma tegal lu mel ni midi hmm? ah amul su la fi na ma jëlee lu mel ni midi la may tegal lu wow koŋ waaw waaw Basiro bu wow koŋ la may tegal ne ma fii laa koy teg du ma du ko teg ci car rapide du ko teg ci camion Basiro huit waaw la koy teg bu tooy xat womat ko ndànk ñun yóbbu ko foofu jëm kenn mënu ci dara mooy dëgg kon nañ bokk jàmm nañ bokk benn nañ bokk nekk te xam ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk askan ñoo bokk juddu ñoo bokk àdduna bi maa gën ndee baay amu fi mooy dëgg sëriñ bu la ko wax bugal say bagaas moo am maa la askan amu fi kenn xamul fi askan yàlla askanoo ñëpp ana ku fi am ndey ak nañ ma ko wat soo ma ko wanee danaa la ne fu la sa baay soo ko waxut tey nga dee a wanaa dëgg li <laughs> ah nit ñi dañu làqu koo fi wax mu ne la doomu aadama la te man gisuma ñu ne aadama am doom tey ñu koy ngénn déggaguma ko fenn de

Musa su ko defee kon bàyyi laay Joal ñu ngi lay wax jërëjëf yal na yàlla fay boole nañ la ak jëmm jooju def nga ci moom jubbanti nga ko yar nga ko teg nga ci yoon biñ bëgg mooy lan mooy mu jeex takk ci Cheikh Ibrahima Fall ñun looloo ñu ñor te def nga ko bàyyi laay yow itam mboojeen jërëjëf fiñ la teg tegu nga ci waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax li ma laay dénk nag mooy bal tooñ bal fayu bal xaccoo bal tooñ bal fayu bal loo am it fasal yéene bokk koog nit ñi te lu nit ñi am fasal yéene bàyyi leen loolu mooy yëfi ngoon ku naral la yàlla nag foofu ngay toog loo am fasal yéene bokk koog nit ñi te te lu nit am fasal yéene bàyyi leen jamono bii ñu toll ku jégué nit ñak lañ xam ñu sik la moy dëgg kañaan nak du la teree dem wax ju bari du la teree dem dem neex naqadi mako wax de neex naqadi da ngay dem soo àddina bi gaje won do la mooli du la jàpp dem mooli luñ tabaxé koy dër mom mom de kon nak teel ñu ci kalimatu la ilaha illallah téyel ñu ci ñoo la garanti bu wér su ko defee la ca des mooy axlu badar ñu ngi ci bennoo bi bu wér nag waaye ñu gën koo yokk nag nañ xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te ñoo bokk sang seex waaw ñoo bokk sang seex man seex jaaj bii ne ci suma dentité bi man man ak yéen ñoo bokk sang seex sang seex c'est la sang seex siru la parce que kansul mahdi dara mosu faa jógee lu dul dara mosu faa jógee loolu mosu faa jógee mu fa door a buddee ko noorul la wër na ku ne mais kansul mahdi barke laa ilaha illallah deux mille sept deux mille deux la door a feeñ góor loolu la góor yàlla yi moo xañoon góor yàlla yi ba tax ñu da ko weexal boroom xam-xam yépp naan mahdi yu mahdi yu mahdi yu su dikkee dee moom ak gaayam ci laa ilaha illallah rek la ñu wépp góor ak jigéen ñëpp ay am xam-xam kaay leen ci ndaje ñun kuñ defar nga am xam-xam te ñi fi toog kenn duggul daara man mii da wax ak yéen mosumaay dugg école arab dugguma bu français jànguma alquranul karim jàngal alquranul karim ba sol ci garam bu bëgg caaya wut ci kawaas ak mbaxanaat kopp te tubooy bu mag ak ba ca ba ca ba ca boobu yëpp solal ba mu nga ñëw moo futti la ba nga set na dese dara barke ci jamono ilaha illallah bu nga la Cheikh Rafal andi woon ci jamono nag dàq yëpp Cheikh Rafal la dellusiwaat ci jamono du fi taxaw de julli geeg koor geeg natt asaka geeg dem màkka geeg saraxe gi la ñu def nàppati dara du ci dëgg tos dara du dëgg nag barke laa ilaha illa dëgg du yàqu na julli di nangu te julli daa yàqu dëgg du yàqu koor a ngi asaka tal dëgg du yàqu kon nit ñi nañ yeexu ci loolu nañ yeexu ci loolu jàkka yeeg jumaa du place Isa moo noon église am bi xeer bu dee dund la waxu ko largeur bi ak naka loo hauteur bi xamal longueur bi lépp benn la loolu laaj naa ko benn chrétien ma ne ko man de dama gis église yi tabax nii ma ne ko gis nii moom largeur yi du benn longueur yi du te xeer bu dee dund moom gisuma ko ci yëpp a dee de wow ak ciment te waxi yàlla du daj ana boobu ay soo ko laalu chrétien bu ko ci wutiwu ah est-ce que da nga am dund ba déedéet les morts les morts toutes les journées la mort tous les temps mort rek mort rek mort et dunya mort et alaxira mort et tab bi sawra parce que Serigne kon nañ bokk dellu ci laa ilaha illallah déggati nañ yal na yàlla barkeel ñëpp ci barke borom daaru Euh, ñu ngi koy ñu wax nag mbokki taalibe yi déggee nañ bàyyi ñun yéen lañu am bàyyi I love you tout le Badri I love you tout le Badri dama leen déggee na ngeen bàyyi xel ne dëgg yéen la yaakaar dëgg yéen la yaakaar barke laa ilaha illallah dëgg ku dul Badri dëgg yaakaarul ñun la dëgg dese nañ ko nangu te topp ko ta defar ko maam ñun ñoo war a defaru ci àdduna bi ndax nit ñi mën a defar ñoo war a jub xoti ndax nit ñi mën a wàññeeku dellu ci siraatal mustaqim mooy dëgg ñun ñoo war a seet wecci parce que ñoo am xalbin sami ñun ñoo war a leer nañ tim ñëpp parce que Serigne Touba ne na Cheikh Ibrahima Fall samsu kullu rijalillah loolu Bamba ko Cheikh na Fall yaay jantu bépp góor yàlla Bamba waxantu ko de. Baye Bass ñu ngi lay ñaanal jàpp di ko ñaanal waa di ko ñaanal waa àdduna da leen wax ne ah mu ngi noonu daal jaageen jëf jàmm ak war rek kontaan nañ su ko defee nag kon ah dañ ko fi yeew rek ñi dee bëgg a ñibbi fu sori man a wàññeekuwaat ñu bàyyeete ko ba déwén ci jàmm euh, bàyyi laay danañ delsiwaat ci yow jërëjëf bu ne am fulla nga bu am ngor bu dëgg bu wér barke laa ilaha illallah ku am ngor ku am fulla ku dëgg ku am yar ku am teggi barke laa ilaha illallah mu ngi nii doy na roy xale bu tuuti la te élève la day jàng waaw daaw la dagg bagam xamoon nuñ ko waxe nak assemblé lañ la wax nak amul arrêt de da nga wara dem ba da dogal ci dogal ya tek ci sa bakkan bi président sa man nga ko do premier ministre lepp man nga ko do dara jom la gis nga ñafa tok gënuñ la nday gënuñ da bay gënuñ da jub balante lañ am rek bu wér kon teggal sa walante te dem ta xam ya wara représenter Cheikh Moussa borom daaru ya wara a Cheikh Rafal ci fepp nak yalla nako yalla defal katam yalla na nga tebe te làmmeñ te programme te or te lépp bàyyi yal na la ko yàlla amul sax yalla nako ya ko yàlla gis nga loolu dafay am lu jeex ñun yàlla ñaanuñ ko tos ci kanam nit ñi lañu wax ni billahi wallahi wa tallahi ñun kun fa yakun di siri kun kun yekkun lañ xam ñun ñun barke laa ilaha illallah ñun luñ wax yàlla dana ko def loolu sib bàyyi barke xadimul xadim dara la nit ñi mënu ci yow dund leen yéen ñëpp laa wax sax suuf.